Mourchid Yane Thiam ci taarix ak xilaas ak ci diine euh, Sénégal danañ ko fàttaliku ba faaw ndax korite tabaski fu ñu ko waxee xel dem ci moom ak taxawaayam bi mu amoon ci diine def na ko démb ci guddi gi ñu xëy ci fajar gi euh, xibaar gu tiis gi siiw ñu koy ñaan ñaanal yàlla xaare ko àjjana euh, Pape Djibril xanaa ñu may rek ku nekk mos euh, ci Yane Thiam mi Mourchid Yane Thiam doon kilifa goo xam ni ni mu ko waxee ba ñuy ndaw ba léegi bu ñu naan tabaski wala korité suñu xel day dem ci moom ndax moo daan àddu dina suba la wala dañuy mottali bu dee koor gi la doog a doog kor yi bismillah ma teg jaal bi ci sa loxo comme d'habitude jërëjëf euh, Abdoulaye Der di nuyu gan yi ak naataango yi nekk ci plateau bi senegale yi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew euh, nit ki ajjuma bale paase rek ki fi jóge woon mooy sëriñ Atou mhm. Diagne di ñaan sunu borom yeesal yërmande ci kaw allahumma amin ki fi jógewaat tamit tey ji ñëpp ko bokk senegal yëpp ko bokk Euh, mu nekk nit koo xamante ni xëy na sax ci mu jëm ak li mu assumé nii euh, muy wàllu croissant lunaire beeg yooyu ci la ko nit ñi gënoon di bàyyi xel. Mhm. waaye lu jiitu loolu it ku mosoon a nekk euh, wax dëgg ci soloy askan bi la ak république bi ak Sénégal dans ses différentes mhm. composantes. Mhm. mu bokk tamit ci jëmm yi nga xamante ni. amuñu woon sens interdit fenn moom ci ñooñ la bokkoon daanaka fu lu xewle woon rek ak fu xewle da nga ko ciy gis. amul clergé bi amul Touba mhm. amul Tivaouane amul fenn ku xewle rek di nga ko gis ci sa ci sa donc mu nekkoon diplomatique diplomate bu mag a mag a mag donc amoon une intelligence sociale boo xamante ni jamono bu nekk le vivre ensemble da doon ci def liggéey bu am am solo donc ñuy ñaan sunu borom fa mu jëm gënal ko fuuf fi nga xamante ni fi la nekkoon euh, di ñaan rek euh, sunu borom tamit euh, dimbali ko yokk leer ak yërmande ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne mbooloo mu ànd ka leen di liggéeyal mooy seen sang. Mhm. te moom ci constamment ci loolu la nekkoon ba ni mu wuy jee sunu borom ñu koy jaale njabootam di ko jaale Sénégal gi yépp di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu xare ko aljana. Cheikh Yérim. waaw di ko aljana waaye di ñaan aussi euh, demam gi euh, méngoog demu ay ñaari korite ak ñaari tabaski. Mm. Euh, comme moom ku doon dox ci loolu la parce que croix commission bi li tax ñu créé woon ko pour. ñëpp mën cee daje <coughs> mën a waxtaan wax jàpp nañu réew mu mel ni Sénégal ak ni mu tuutee wala ñu fay am ñaari korité ñaari tabaski ah et cetera. bon loolu nag vraiment loolu moom vraiment je pense que leçon bi nga xam ni loolu ci war a tirer mooy jàpp rek ni euh, war nañoo góor góorlu ci loolu man dafa ma frappé dëkk bu mel ni Guinée par exemple Guinée <coughs> bu ñu waree woor imam ratib bu. bu grande mosquée Faysal bu Conakry. mooy def communiqué waxuma mooy wax de. c'est-à-dire télé ak rajo yi dañ naan imam ratib mosquée Faysal nee na suba la woor bu ñu xëyee ñëpp woor demee ba war a wori dañ naan imam ratib mosquée Faysal nee na suba la ñuy wori bu ñu xëyee suba ñëpp wori bu ñu demee ba war a pourtant foofu am na ay tarix am na lépp. bu ñu demee ba war a tabaski imaam ratib danaan voilà suba laay rey sama xar suba ñëpp ñëw julli mu rey xaram ñu kii yàlla nañu yàlla dimbali ñun Sénégal ba ñu ba àgg foofu ndax jàpp naa ne aussi lu ñu gën a ànd borom bi gën a kontaan ci ñun. Hmm. voilà. Papis. waaw di ko jaale Sénégal yëpp. Hmm. umma islamique beeg euh, Sénégal yëpp comme ni ko Pape di waxee c'est vrai que c'était un religieux Euh, njàngu beeg euh, musulman yi man xam naa ko tuuti parce que il fréquentait beaucoup Walfadjri à l'époque c'est un intime de Sidi à l'époque et donc muy góor gu amoon njëriñ pour Sénégal di ko ñaanal di si jaaree aussi madame ngalaan nekkoon ku baax nekkoon ONAS moom it jóge fii démb malheureusement ak ñi ñàkk ñëpp seeni ay mbokk ak seen am jàmb si réew mi ak ci àdduna bi di ñaan yàlla mbir mi yem fi euh, ñu delluwaat si sunu jàmm booba bismillah waaw non ma ci yokk rek ci li gars di wax euh, kilifa effectivement bu ñu bu ñu nawloo woon la ndax je pense que yenn position yi boo koy jël c'est parce que nangu nga jël ay risques parce que euh, contrairement à ni ko ni ko Yérim waxee <coughs> ñu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu bu xaw a particulier la ku nekk am na foo bokk te ku nekk ca fa nga bokk rek foofu ngay maanaam foofu ngay wékku donc c'est c'est très sew na compliqué na mais mhm. Sénégal moo toll noonu je pense que bu dee bu dee murit bi day tënku ci xalif général des murit bu dee Tidiane bi tënku ci xalif général des Tidiane bu dee Laayeen bi naka si naka naka naka noonu donc c'est très compliqué mais je pense que loolu moo doon moom particularité am mhm. mooy essayer de trouver benn synergie c'est pas facile parce que ku nekk peut-être mën na dal ci ci ci sa kaw mais mhm. euh, yàlla nañu yàlla dimbale je pense que quelque part on est un pays boo xam ne peut-être du du ñu comme yeneen dëkk yi mais ku mel ni moom peut-être même bu bu demee am na lu mu fi bàyyi loo xam ne mm-hmm. peut-être ñeneen ni parce que pour man euh, peut-être dafa commencer dara mm-hmm. loo xam ne peut-être aboutiragul xamuñu ndax dina aboutir mais au moins ubbi na benn champ boo xam ne nit ñi commencé nañu réfléchir sur comment ñu ñu converger un peu mm-hmm. décision yi c'est pas facile mais comme dañu tënku ci ay kilifa malheureusement ci loolu rek la mën a mën a mën a yem Mm-hmm. Mouhamed Habib euh, ci jëmm ji fi bàyyeeko nga xam ni yàgg na taxaw ngir ñu jullee woreendoo julleendoo mais comme ni ko buuba waxee comme fii tamit dañu am ay réalité muy loo xam ni sumb na ko xanaa ñi nga xam ni ñoom ñoo ko war a donn ci mission bi ñu taxaw si ba mu yegg incha allah. jërëjëf ah, bon loolu ba tàmbali maa ngi nuyu waa plateau yëpp. Mm. Euh, di jaal umma islamique bi parce que ñëpp képp ko xam na Iyane Thiam de man mi doon sama dëkkandoo la ñoo dëkk. Euh, ku bëgg lislaam la euh, yàlla boole ñëw man depuis 92 laa ko xam dëkkoon amitié 2 saa yi may julli juma point sax maanaam ñoo doon ànd ko mhm. vraiment di ko ñaan yàlla rek fi mu nekk yàlla daax yàlla ko defal jàmm ak di ji jàlle mu islam yëpp quoi merci Jéeme comme dala ci fekk waaw comme ni ko ñëpp waxee rek mhm. ñu ngi jaale suñu maam Iyane Thiam <coughs> di di ko ñaanal suñu borom mu yóbbu ko àjjana yu gën a kawe ci àjjana yi ndax vraiment ñun xamuñu ko bu baax ci télé bi rek lañ koy mhm. gisee di ko wax dégg ay waxam euh, jàpp nañ nit ku baax la parce que li fi toog yëpp ñu ngi seede si moom témoignage bu baax merci malal bismillah yàlla ko yàlla xaare àjjana salaamaaleykum ñuy nuyu ak a ziar mbokk yi mbokkal rato bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci waxtu bi euh, ñaan borom bi jubal li ñu fi indi. allahumma amiin te yaakaar bañ ci tas laa kuliyaal comme noonu ñu ko waxee fekk fi xew-xew boo xam ne daanaka jamono ñu ànd ñu ko mën a waxee ndax ci suñu borom la ñu jógee ci moom la dellu waaye ci ki mu dal ci kawam ñëpp ñu xam ko tey boo xam ne yaakaar naa boo ko waxee Sénégal yëpp ñu xam ko te it fi tax ñu xamee ko mooy suñu diine lislaam bu maanaam kaddu yëpp converger jëm ci kenn jox ko responsabilité bu toll noonu ba pare moom mu nangu woon ko. mënoon ko it bañ ndax wax dëgg yàlla du woon force ci mu di ko def ni mu ko defee noonu la ma ko defee mm-hmm. defal ko ñëpp la ko doon defal ci gàttal maanaam dafa nekkoon ci ponk boo xam ne comme ni ñu noddee ci jàkka ji ñu jël bilaal ne ko noddal moom noonu lañ ko joxoon responsabilité mm-hmm. boobu mu di ko def lu ne mu di ko ci dégg nag comme ni ñu ko xamee ci réew mi ñu nekk waaye teewul mu assumé ko mm-hmm. li ma koy ñaanal mooy ci yi mu daan sukkandiku bay joxe yooyu di nekk yàlla na suñu borom def yëpp nekk dëgg allahumma amin lépp luñ ci jaamu yàlla ko borom bi nangu allahumma amin borom bi gën ñoo gën ñoo jubale Mhm. comme noonu ko euh, Cheikh Yérim waxee léegi ba borom bi jubal ba yu mel noonu jóge fi àlakuli àlli ñuy jaale it sa Marie Thérèse Curtis euh, soxna suñuy liggéeya ndool la fii mi ngi ak euh, Pape Cissé ñoom ñu ngi ci côté digital ak marketing yaayam moo wàññeeku ñi ngi ko koy jaal moom it Marie Thérèse Curtis beneen tiis goo xam ni bâtiment bu daanu la fële ci xodd ba mi ngi nekk Kër Moussa région de Thiès ñeenti nit ñàkk seen bakkan muy ay carreleur yoo xam ni man am na ñu ma woon leen dañ leen xamoon personnellement fii ci plateau bi am na ñu ñu liggéeyal ñun xarañoon ci seen ci seen ci seen euh, wàll la ñu woon euh, muy loo xam ni tamit daf ñuy jaaxal mille vingt 2021 ñu toll foo xam ni dañuy tabax R plus 3 muy màbb ci kaw ay nit loolu naka la mën nekkee ak naka la ko mën xel xel mën a nangoo ñuy massowu njaboot yooyu tamit euh, di leen jàll ci image yi ngeen di gis nii Cheikh Anta Diop moo ko tourné cees mooy euh, bâtiment bi wàcc ci seen kaw euh, malheureusement buuba ah, naka lañ mën tabaxee bâtiment muy daanu 2021 waaw mais bu doon bu doon et puis bu doon defe naa bu doon sax kër sax dina difficile mais d'après lu ma ci kii dégg mooy entreprise la boo xam ne peut-être dafay liggéey ci wàllum ay électricité poteau électrique ak yooyu cest dire que je pense doy na waar daal bu dee bâtiment mooy daanu xaw ma produit <laughs> produit yi joxe nu nu muy mel mais daal euh, doy doy na waar et puis c'est c'est des choses yoo xam ne pour man euh, warul mën a nekk. Mm. surtout ci des su dee ñoo xam ne dañ dañuy tabax béréb rek pour di fa liggéey loo xam ne sax moo gën a sensible. Mm. mënuñu parvenir à def ay bâtiment yu baax c'est extrêmement grave. je trouve. ba pare woon ñu livré ay poteaux électriques comme tu dis. yàlla na ba pare boole si yàlla yàlla def dafa dafa def que ci ñi ciy liggéey. Mm-hmm. indirectement ndekete man mës nañu sax. Euh, am na ci ñoo xam ne dañu liggéey nañ ma. Mm-hmm. ci benn euh, travaux ay travaux yu ma doon def. pour rek te mm-hmm. dire que vraiment ça fait très mal et responsabilité yi nga xam ne dañ ko war a situer jël leen décision qu'il man am na ay kilifa yu ma la woon yu la wax ni ma xamoon nañ leen bu baax liggéeyal nañ leen et ils étaient très satisfaits quand même de leur travail. Yérim da ngay sànq il faut ñu dem ci benn question. kan moo def lan ak nit bu defee lan lan moo ko ci mën a fekk. parce que aussi xam nga naqarlu bi baax na trop ñaawlu bi baax na trop mais euh, yaa ngi tabax mais xanaa bâtiment boobu amoon na architecte wala boog amoon na maître d'œuvre wala boog amoon na maçon wala boog xam nga. parce que aussi bu fekkee ni dañuy tabax ay bâtiment yoo xam day daanu ci nit ñi nit ñi di dee chaque jour nit ñi di naqarlu muy jàll. mais attends dans quel pays sérieux au monde nga sañ a taf tabax boo xam day daanu ci nit ñi parce que aussi tant que jugé wuñu nit ñi tëj leen kaso baal ma de c'est peut-être violent li may wax mais bâtiment yi dañuy kon di daanu parce que loolu dafa grave quoi parce que euh, pour man loolu mise en danger de la vie d'autrui la franchement ah, yaa ngi tabax loo xam ni respecté woo benn norm parce que bu daanoo mooy respecté mais même boo respecté norme yi sax erreur bu ci bakkan faatoo da nga ko war a fay tu comprends maslaa je veux dire xëy na yàlla mën naa dogal lool mais des fois aussi